défendez la paix. jàmm jàmm rek way leen ko na gën a fës ci seeni way te ñu dund ci wàllum jàmm comme na ko ba mar la waxee woon ci nga xam ne mooy ay wayam te itam bu fekkee ne nit danga ko dóor waaye mu nekk fa itam di nga xam ne moo di jooy loolu du yàq dara ci nga xam sax fayiwul kon nag war nañu mën a bàyyi di jàmmarloo ak suñu morooma kon foog ñu xam ne Sénégal gii ñun ñëpp benn lañu te kenn mënu koo xarñaar ñaar dañuy bëggante suñu biir respectante te kenn mënuñoo féewale ci mim réew déedéet képp nga xam ne daal bëgg nga rek indi wàllum ay fii ci mim réew nan ko tegee na ndax ay moom baaxul sax ci mim réew kon ñun ñëpp war nañoo waxtaan ci li nga xam ne mooy musique war na véhiculer ab message te loolu du yàq daara ci nga xam sax mooy léeg-léeg ñëngi ñëgi xol waaye nam ci anam yan koy waxee kon jàmm daal moo war a soxal ñëpp. en rien votre droit absolu.